bu ci waaye duñ seet nag menn pepp rek génneel ci yëpp yëpp yëpp reseñ nag moom nee nañu des na ko yemaleeg tàndarma nga xam ne bu fekkoon ne ay façon yi façon yi reseñ moo fa nekk des naa seet ba ca diggu doomu ñu génne ci asaka jël lépp lépp te bañ a topp rek benn bu ne ñu génn ca lañ ca war a génne wala nekk jafeñ-jafeñ ci kiy joxe asaka ji wayu zakka def na asakaal ak zaytoonu zaytoon ñu koy wax oliw ida balax ndem jot na xabbuhu peppam ma xam sat aw sukki juróomi was axraja mu génne min sayt yi ci diwam nga lu mel ne zaytoon dañuy njëkk a seet ba xam doom yee ci boppam ku ko seet dana mat nisaabam déet bu matee nisaab nag asaka war ci waaye dañuy génne asaka ji ca diw ga te bañ koo génne ca pepp ma zeytoon moom bu yàlla dogalee mu am diw boole ci faw rek asakaam day génn ca diw ga soo ko génnee ci pepp ma du doy boo ko jaayee génne ko ci njëgg du doy li ci des nag moom bu génnee ca njëgg mbaa ci pepp ma mu baax ba tax mën naa wayu xurisi dana génne mi ne juljulaan ci juljulaan wa xabil fujli ak xabil fujli min sayti ci déewam nga teewul fa in baax ndem jaay na daalika loole ajji sa axoo mu day ko ay yoxrija mu génn min saman xiic njëgam nga incha allahu ndem soob na yàlla lu mel ne juljulaan ak xabul fujli ñoom dañoo am jiw ba tey waaye moom boo leen jaayee génne asaka ci njëgg mu baax jëmmi pepp ma sax mel na ne boo ci génnee asaka ja mu baax waaye saytoon moom bu xasee am diw moom jeex na ci diw rek ngay mën a génne asaka bu dee zaytoon boo xam ne amul diw nag moom dañuy génne asaka ja ca njëgg dañuy seet na asakaam war a toll ci njëgg ñu génne ko ci njëgg te bañ koo génne ci pepp ma moom itam wala zakat di asaka fil fawaak yi mu nekk ci furu yi dañ koy wax nag fil fawaak yi ca payteef ya wal xudari ak lujum ya bu dee ci yoonu Maalik moom xeeti payteef yi mel ne mangoog orange ak mandarine xeeti yëpp moom asaka du ci war xeet lujum yi way tooy itam dara asaka du ci war wala zakat nit asaka min dahabi ci wurus fi aqal na ci lu yees min xisrina ci ñaar fukk dinaaram ci ay dinaar fa isa balaxat ndeem jot nañu xisrina ñaar fukk dinaaram ci ay dinaar fa fiha kon nekk na ca nisfu dinaaran genn wàllu dinaar lu ko xoon xusri te mooy kaaru fukkeel ba wurus moom bu fekkee amoo ci lu mat nisaab asaka du la war nisaab bi wurus nag dañ koy tolloo la ci yooyu jamono ci ñaar fukki dinaar yow nag mën ngaa xam ngaraam yi moo la gën a leer jàppal ne quatre-vingt-cinq ngaraam mooy nisaa bi wurus boo amee lu mat loolu ci wurus war caa génne asaka bu ko ëppee it noonu su yemoon nag ci ñaar fukki dinaar moom da ngay génne kaaru fukkeel ba te xam nga ne ñaar fukki moo ko doon séddale fukki nit kenn ku ne ñaar lay téye ñaar yi boo ko defaatee ñeenti xaaj muy ñeenti genn wàll wala moo tax ma ne genn wàllu dinaar moo doon war a nekk asaka yi ñaar fukki dinaar ndax kaaru fukkeel nga war a génne te ñaar fukki moom boo ko séddale fukk ku ne ñaar lay téye ñaar yi boo ko defaatee ñeenti xaaj muy ñeenti genn wàll fama saada lu yokku nag fa bi xisaabi zalika nekk na ci rek le loolee wa in xalla ak doonte néew na bu xasee mat ni saab lu ca toll lu mu bari bari rek ak lu mu néew néew ñooyee moo da nga koy def ñuy wax rek divisé ko par dix la génn ci dix yi nga divisé waat ko par quatre par par ñeenti xaaj ya boo ci joxe rek mooy daal doon sa asaka wala zakat nit asaka minal fiddati ci xaalis fii aqal na ci lu yées min mi atay dirhamin ci ñaari téeméer dërëm te wa saalika loolee xam su awaaxin juróomi uqiya la wal uqiyatu benn uqiya arbaxoon ñeent fukk la dirhaman ci ay dërëm min was ni sabxatin ci puwaab juróom-ñaar ax ni maa ngi jublu ne an na sabaxata danaanira naka juróom-ñaari dinaar ya was nu xaa seen mandax yi ci xaalis xasir drahima mooy fukki dërëm nee na xaalis moom bu fekkee amoo ci lu man nisaab asaka du la war nisaab bi xaalis nag mooy ñaari téeméer dërëm yoon bokkut ak ñaar téeméer yi nga xam fii am na ñoo xam ne ñu koy jàpp ñaar téeméer yi ndax moom génn juróomi dërëm daa yomb rek waaye jàppal ne ñaar téeméer yi wax moom man nga koo xam ci ay ngaraam ñaar téeméer yi mi ngi tolloog cinq cent quatre-vingt-quinze ngaraam cinq cent quatre-vingt-quinze ngaraam nag boo bëggee xam lu mu tolloo ci CFA da ngay laaj tëgg bi nga xam ne moo koy xel di ci tëggee ay jaaroo yooyu nga ne ko waaw benn ngaraam lu mu toll léegi dem bañ ko laajee dañ ne woon benn ngaraam mi ngi toll ci deux cent quatre-vingts deux cent quatre-vingts ci CFA nag boo ko defee maanaam boo ko multiplier cinq cent quatre-vingt-quinze da lay jox cent soixante-six mille six cent kon tey jii boo doon seet mbaa démb daal misaaju xaalis moom mi ngi toll ci CFA cent soixante six mille six cent daa am nag ñu gëstu gëstu bu yees wax ne dañoo war a seet misaal yi mboolem xeeti xaalis yi muy dollar muy CFA muy beneen ñu takk ko ci lu war a toll ci quatre vingt cinq grammes ci wurus ndax ne wurus moom du bara la soppiku dañ ko war a fa takk ci loolu ndax dañoo seet ne misaal ci nga war a am ci jur ba génne ci asaka day bari lool ndax xam nga juróomi gëléem lu néew néew bala nga bala asaka war ci gëléem nga am juróom te fi ñu toll nii genn gëléem donc mu ëpp fi ñu toll nisaab bi ji nga wax léegi ci cent soixante six mille six cent yi nga wax genn gëléem jar na lu ko ëpp te juróom nga cay am door a asaka door laa war boo demoon ci nag fanweer ngay am gën gaa néew asaka door laa war boo demoon ci gàtt mi xar ak béy gën gaa néew ñeent fukk ngay am asaka door laa war ñu ne kon nag kon sooy boo nisaab bi xaalis tam ñi cher nag jamono yi nekk xaalis boobee bu mën doon lu war a toll ci quatre vingt cinq grammes rek ci wurus lu mu ca tolloo rek jàpp ne mooy nisaab loolu la bañ ko seetee ci ay jamono matan na téeméeri junne ak ñaar mel ne ne kon boo toppee takk-takk boobu daanaka nisaab bi xaalis moom du yees mukk téeméeri junni day tegal rek néewoo bari dërëm yi mu lay wax ñi day doon dërëm yoo xam ne moom nee na soo peesee fukki dërëm ya day diisee na juróom-ñaari dinaar dërëm yooyu nag boo ci amee ñaar téeméer asaka war la mën ngaa xam nag benn dërëm yoon daal nuñ koy tolloole mooy deux virgule neuf cent soixante quinze deux virgule neuf cent soixante quinze mooy benn dërëmu yoon boo ko defee ba muy ñaar téeméer nag moo lay jox li ma waxoon léegi cinq cent quatre vingt quinze grammes fa isa balaxat ndem jot na haadihi darahim yi lay dërëm mi atay dirhamin ñaari téeméer dërëm fa fiihaa ko nekk na ca rubu mushriha kaaru fukkeelam ba xam sa trahim te ma juróomi dërëm fa ma saada lu yokk rek fa bi xisaabi saalika nekk na ci rek la loolee nee na boo xasee am lu mat nisaab ci xaalis noonu nag war nga caa génne asaka asakaam nag moom dangay génne kaaru fukkeel ba kaaru fukkeel nag mooy boo ko defee fukki xaaj benn xaaj nga defaat ko ñeenti xaaj boo gisee ñu wax ne ñaar téeméer juróomi dërëm mooy asakaam dañoo seet ne ñaar téeméer boo ko doon séddale fukki nit kenn ku ne day téye ñaar fukk ñaar fukk boo ko doon séddale ñeenti xaaj xaaj ba juróom lay doon loolu moo tax ñu wax ne juróomi dërëm mooy asakay ñaar téeméer loolu rek ko waral waaye daal jàpp ne wurus ba baa xaalis ba lu mu bari bari boo ci génne asaka dañ koy diviser par dix la génn mooy fukkeel loolee di fukkeel nag nga diviser waat ko par quatre lu gé lu génn ci par quatre yi rek mooy doon sa asaka waaye jumaa def na boole ak dahabu wurus wal fiddatu ak xaalis fi zakaati ci asaka nga xam ne fa man kaan ku nekk lëxoo di ko ñeel mi atu dirhamin téeméer dërëm waxasura danaa jël ak fukki dinaar fa jox rit na génne dañ ko limaale ci bépp alal rubb xam xusrihi kaaru fukkeelam ba des na boole wursa xaalis ci asaka mooy so amoon genn wàllu nisaa bi kee am genn wàllu nisaa bi kee asaka war la mel ne da nga ne woon ñaar téeméer dërëm mooy nisaa bi xaalis kon nag boo amee téeméer am nga xaaju nisaabam da nga ne woon ñaar fukki dinaar mooy nisaa bi wurus kon boo amee fukki dinaar peut am nga xaajub kooka bu amoon kon xaajub kee ak xaajub kee dañ koy boole jàpp ne léegi asaka war na la am nga nisaab ju mat bu la neexee nag génne lépp ci xaalis ba mu juróomi dërëm bu la neexee génne lépp ci wurus ba mu génn wàllu dinaar bu la neexee kenn ku ne nga génne ci la nga ca war a génne la ci gënal rek baax na wala zakat nit asaka fil orodi muy nekk ci marchandise ya xataa takkoona ba te ñu nekkee li tijaarati ngir yaxantu maanaam jàppal ne lépp loo xam ne du xeet ya mu la wax ne asaka war na ci loo ko bari la bari la te nekkoo di si jaay ko jënd ngir bénéfice da nga ko am rek ngir boo amee soxla faj ko ci nit ki boo bari woon ay rajo mbaa ay montar mbaa ay fas mbaa ay mbaam mbaa ay sareet mbaa ay kër moom daal lu ne asaka waru ci rek loo ko bari la bari la te nekkoo di si yaxantu maanaam di si yaay di si wut bénéfice asaka waru ci lu may nga jaay ko boo ko jaayee itam du tax asaka war ci da ngay seet bis bi nga ko jaayee bu dee see waxtu woo ci déwén sa fekk njëgg des fa lu mat nisaab asaka war la ca waaw budloo asaka du la ca war mu des nag bu fekkee da ngaa wut marchandise yi ngir jaay jënd am ci bénéfice kooku la ñuy bëgg a wax nag moom fa isa bi antaxaa ndeem jaay nga marchandise ya baax da xaw leen ci gannaaw at faak sara topp lu góob mi néew mi axaw sa bis bépp ci bis ba nga jàppee sama naxaa seen njëgg aw zakaytuhoo mbaa ba nga leen gëjee asakaal fa fii sama nixaa ko nekkal seen njëg ak zakaatu asaka li xaw leen ñeel at waaxid mu ni menn aqaamat moo xam sax nañu xamul bay ci njëkk jaay ga xaw leen menn at aw ak sara mbaalu ko ëpp maanaam nag commerce dafa def ñaari xaaj bu dee ci asaka bi mu njëkk wax nii mooy li ñuy wax ixtikaar dakar ci dakar ci mooy marchandise bi nga yor boo ko jaayee prix normal da ngay bàyyi ba nga xam ne marchandise bi néew na ñu bari amatuñ ko nga jaayee ko lu jafe-jafe lu seer a seer muy aw kaañ kooku nag moom moo gën a yomb ci wàllu asaka wala la ca asaka war da ngay dem ba jaay ko ba mu jar nga ngëb njëgg bi wurus mbaa xaalis li la fayoon njëgg bi marchandise du tax asaka war ca waaye nag boo demee ba jaay ba mu jar nga ngëb një nga ngëb njëgg nag ñu wurus mbaa xaalis nag asaka war ca bu fekkoon ne nag marchandise bi sax na ci yow ay ati atitam tax nga topp na at yi toll at mu ne nga génneel ko asaka da ngay seet rek génne asaka men at doom at ma yaa ngi koy tàmbalee ci ba nga amee njëgug marchandise yooyee mbaa ba nga gëjee asakaal njëgug marchandise yooyee kon kooku mooy benn xeetu commerce bi mu des nag ci des mooy illa an takkoona ndare bu da ngaa nekk mu diiran di aji wandeel nga xam ne laa yastaqiru du sax bi yedika ci sa loxo xay nun kee wala xar dund ci ak yoonu marchandise fa in naka naka yow tu xawi mu da ngay xayma da ngay xayma xoroo daka say marchandise ku la xaamin ci mépp at wa du sakki te ngay asakaal daalika loolee ma xamaa ànd ak li nga xam ne bi yedika nekk na sa loxo mina ay ni ci kee lii nag moo ëpp ci jaaykat yi fii ñu koy tuddee al idaaratu wandeel mooy yow sa marchandise da nga koy jaay rek prix normal bi nga xam ne moo jaadu xaariwoo ko mu neex lool lool jafe lool lool déedéet te it loo jaay mu jar da ngay jëndaat neen marchandise tegaat nga xam ne kon wur sa xaalis du sax ci sa loxo marchandise du sax ci sa loxo ndax li nga yor da nga koy jaay ci prix normal te bu jaree da ngay jëndaat tegaataat kooku nag moom ku mën doon ci ku mel noonu ku mat kuy commerce noonu day seet kañ la tàmbale woon am yaxantoom ba mu del ci déwén sa muy at mu daal réglé mboolem li mu am ci marchandise te réglé ko prix ba nga xam ne mooy xew ci yooyu jamono ndax xam nga prix day wóote ci waxtu nga toll ak béréb ba nga toll kon dana seet béréb ba mu toll la mu fay jar ak waxtu mu toll ci wa muy asakaal fu njëgg a fu njëgg a toll loolu lay loolu lay compter marchandise ya seet nag ba xam yor na xaalis likki itam déet mbaa mu dénkaane ku fenn yépp mu boole ko bu fekkee am na ko ameel bor koo xam ne moog lu mu téye ba noppi ñooyam ndax kooka am na ko te ku jublu dana ko indi da koy daal total benn yoon far ko génne waale asaka benn yoon xam ne comme su boolee réglé la mu yor ci marchandise mbaa lu mu dénkaane fenn mbaa bor bu mel noonu nga xam ne moom moog lu mu yor ñooyam moom yépp lay total nag léegi ne nangam la seet nag la ci war a génn ci asaka mu génne ko fi saasa kon li ëpp ci commerçant yi noonu mooy seen doxal yi nu génne asaka ci jamono ñu toll foofu nag ñu seetluwaale fi lan mooy àtteb ixtikaar dakkar ci maanaam di jënd marchandise ma di ko téye rek di ko téye ba mu jafe lool nga jaayee ko lu jafe jafe jafe jafe loolu nag nee nañu bu dee ci nimaal yi waxee moom dagan na doonte sax dangaa topp xeeti ñam yi nit ñi dunde di ko jënd yi denc it di fekk andiwul lor ci nit ñi rek baax na kon daal jàppal ne dakkar ci moom dagan na ci kaw rek nit ña bañ caa loru wa xawlu ribxil maali atum tome alal xawlu aslihi mooy atum cosaanam la daa wax ne nag bénéfice moom doo seet ba xam am na ci sag moomeel atam déet la jur bénéfice bi rek ngay seet ba xam am na ci sag moomeel atam déet mel ne tey bu doon ci wurus nga yor fukki dinaar ci jël bennu tam xarit yore ko yor ba am juróom benn weer ci at mi nga door caa jënd marchandise te yéene ca yaxantu am ci bénéfice maanaam kon soo demee ba tegaat juróom benn weer jaay marchandise moomee bu farmat ñaar fukki dinaar du tee asaka war ca te boo ko dee seet bénéfice bi moom juróom benn weer rek la am ak yow waaye cosaan li nga xam ne mooy fukki dinaar yi nga xam ne moo jur lépp lépp mooy ndey ja am na at xosee at rek léegi dañuy jàpp ne lépp am naat nga xam ne kon duñu seet ba xam bénéfice am na ci sax moomeel atam déet ndey ja muy la jur bénéfice ba rek la ñuy seet bu amee at ci sax moomeel rek asaka war la wa kasaalika naka noonu xawlu nasi anxaami atum ngirtil juri kër ya xawlul ummahaati mooy atum yaay ya ngirte mooy doom rek kon jàppal ne juri kër yi yey cosaan rek buñu amee ci sax moomeel at yee ci juddoo du seet duñu seet ba xam am nañ at ci sax moomeelam déet ci misaal boo amoon ñaar fukki gàtt ci njëlbéen tam xarit yor ko yor ba weeru koor ñu door a tàmbalee jur naka ñu tàmbalee jur ci weeru koor wu rek teg ci ñetti weer rek muy koor kori diggi tabaski rek daal di mat far ñeen fukk koy du tee ñu seet ne am nga ñeen fukk asaka war la rek te boo ko dee seet ñaar fukk yi muy cosaanee ñoo am ci sag moomeel at waaye yi ci juddoo moom amuñu sag moomeel at waman loxoo koo xam ne ñeel na ko maalul alal tajjibu joj dana war fii ci moom azakaatu azaka waxaa léegi te war ko day nun bor mis loxoo bu toll ne moom aw yan xusuxoo wala mu koy wàññi xan miqdaari maali sakaati walis tolluwaayu alali asaka fala zakaat dit asaka xale yi di ko war ñu ne boo yoree wurus sa xaalis boo xam ne mat na nisaab asaka war na ci waaye da nga amee bor bu toll noonu nga xam ne soo ko fayee da ngay jeexal tàkk wala nga xam ne boo ci fayee bor ba lay des du matat nisaab mu ne kon yow si jaan wàcc na kon du jar ngay joxe asaka waaye nag xoolal lim ci teg illaa an yàqu wala ndare bu dafa nekk indahu fa moom mun maa mun maa ci la nga xam ne laa yu zakka di fu ko asakaal min oro din ci ay marchandise muqtanaat ñu duñ koom luloo yu ñu koom luloo mooy yu ñuy faje soxla rek boo boo soxlaa jaay ci faj ci soxla aw raqiiqin wala ay jaam aw xayawaani wala mbundat muqtanaat ñu duñ koom luloo aw xaqaarin wala aw lew lew mooy suuf aw rabxin wala kër kër wala pàkk maa loo xam ne fii nekk na ci wafaawut ak matal li day nii ñal borom fal yu zakki kon na asakaal maa la nga xam ne béedi yi nekk na ci loxo mi dal maa li ci alal daa wax ne nag bu fekkee ne dëgg la sax li nga yor ci wuru sa xaalis moom boo ci fayee say boro day jeex mbaa lay des du matati nisaab waaye nag am nga yeneeni matériel yoo xam ne ni asaka waru ca niki am nga ay xeeti rajo xeeti machine ak xeeti kërëg wala xeeti jur wala xeeti jaam ca ba jaam amee ak ak yu mel noonu nga xam ne asaka waru ca te yooyee boo ko defoon ca bor ba bor ba mat su boobaa kon dañuy seet ne asaka war na la duñ dogu sax duñ dogu sax ci ne ci ne la jaayal yi ñu wax te nga yore ko def ko ca bor waaye dañuy seet rek ne moom asaka war na la maanaam buy seetloon daal yow li nga am ci xeeti matériel moom ku ko xayma def ko ci bor bi sa bor bi mat kon dañuy wax ne kon léegi yow asaka war na la ci wursu xaalis yi nga xam ne moom nga yor génn ci asaka kon loolu nag moo tax commerçant yi asaka di leen war ne booy seetloo li ñu amee banque yooyu moom du yor mukk daanaka wursu xaalis wu ko mën a fay waaye nag dañuy bari ay kër ay télé ay oto ak xeeti yëfi àdduna yooyu lañu bare bari yoo xam ne xëy na ko defoon ca bor ba bor ba mat mais noonu nag moom lañu seet duñu doogu ci ne la faaw nga xayma di def ko ci sa bor bi waaye dañuy seet rek ci tolloole bu fekkoon daal ku seet sa matériel bi nga xam ne moom yor nga ko nii te asaka waru ci te loolu woo ci nga xam ne ku la doon susur tey du la ko bàyyi da koy jaay faye bor ya mboolem lu mel noonu te nga am ko dañ koy xayma buñ ko xaymaa nag ci seet ne bu demoon ca bor ya nag bor ya mat dañuy wax ne kon li nga war ci wut sa xaalis moom asaka war na ci fa in lam tafi ndéem mataliwut orooduhoo marchandise am ya bi day nixii ci borom xasaba mu calculé waaye mu lim baqiyata day nixii la des ca borom ba fii maa ci la nga xam ne bi yeddi yi nekk na ci loxoom fa in baqiya ndéem desaat na bax da zalika ci gannaaw loolee maa loo xam ne fii nekk na ci azakaatu asaka zakkaahuma asakaal ko nee nag bu fekkee dañoo seet ne yow li nga am ci matériel boo xam ne loruwoo ci ku ko seet def ko ci bor ba du tax bor ba mat dañuy seet ku ko ci def wëlbatiku mottalikoo ci li nga war ci wur sa xaalis liquide ba xam gannaaw bi ñu ko ca mottalee lay des mu nuy toll bu fekkee ne ku seet say marchandise def ca bor ba duñ ci doog sax waaye dañ koy seet rek kon bor ba dana des ci misaal lu mat fukki dinaar yoo war a fay kon buñ génnee fukki dinaar yi boole ko marchandise yooyu nag faye bor ba ci kaw tolloole rek dañuy seet lay des gannaaw fukki dinaar ya lay des gannaaw fukki dinaar ya bu matee ñaar fukk mbaa mu ëpp ko asaka war ca ndax loolu mat na nisaab bu fekkee matu ko nag asaka du ca war wala yusxitu du rotal adday nu bor zakata xabbin asakay pepp wala tamrin du caageen tàndarma wala machiyat du caageenu jur li mu la wax léegi ne la boo yoree wur sa xaalis ba noppi amee bor bu fekkee daa tolloog bor ya asaka wàcc na la bu fekkee boo ci fayee bor ya du matati nisaab asaka du la war day bañ na nga boole ci pepp mbaa tàndarma mbaa jur dañuy jàpp ne yooyu moom dañuy jàpp ne yooyu moom moom la way ñàkk ñu dimbandikoo bu ñu leen ko joxee asaka dañuy jàpp ne asaka yi mbay daal moom ak asaka jur loo bari bari ay bor rek war koo joxe ndax way ñëw ñu doole ci loolu la ñuy sukkandikoo ba mën a wéy sa asaka ji ngay joxe ca mbay ma mbaa ci jur ga dañuy jàpp ne moo ëpp solo way way néew ñu doole way ñàkk ñi at mi boo ci bayoon seet sa mbay mi yépp far mëntu fay say borit waaye mat na nisaab moom du tee rek nga génne asaka ji joxe moom jur ba tey noonu la fekkoon ne nga yorub jur yore bor yoo xam ne boo defoon jur gépp ca bor yi du tax matit waaye jur ga asaka war na ci rek mat na nisaab rek faaw asaka war na kon wur sa xaalis la ñuy wax loolee ci mbirum bor ma ci mbirum bor waaye asakay mbay asakay jur moom faaw nga génne ko gannaaw ba nag boo loroo ñu mën laa jox asaka yu sa bopp itam nag ñu mën laa jox asaka yu sa bopp gannaaw ba ne loru nga ñaax wala zakatu di asaka xaalis di ko war fii day nuñ ci bor xataa yàq bi daxoo ba te mu ko ngëbee wa in aqaama ak doon ci saxoon na awaaman ay at fa inna maa yu zakki yi naka dana ko asakaal li xaamin ñeel at waaxid bu di menn baax da xabdu yi ci gannaaw nga moom nga loolu da ko delloo ci commerçant bi def ixtikaar muy dakkar ci ixtikaar mooy dañu waxe woon yor marchandise di ca xaar marchandise ma néew ba nga am caw kaañ mooy yow doo ko jaay prix normal da ngay xaar ba mu néew ba nga mën cee am njëg gu bare bari kooku moom bi ko amee lee bor ca marchandise yooyee lu bor ba yàgg-yàgg ba keroog mu ñu ko koy fay rek asaka du jawar te buñ ko fayee fekk mu ami at at tam koy asakaal men at rek waaye du wàññi na at ya toll at muy mu génne asakaal dañoo waxoon ca marchandise ma rek ne kuy kuy def boobu xeetu commerçant moom wala ko asaka war ca marchandise ma mu jar tey wuru sa xaalis te ku ko seet boobaa léegi cosaan la ak léegi mu mat at ci moomeelam la ko asakay door war bor yi noonu lay mel bi ko ci ameelee bor ci xeetu commerçant bu mel noonu lu mu yàgg-yàgg rek li fekk fay ñu ko ko asaka du ko ca war buñ ko fayoon te te du wuru sa xaalis ñi ki ñu fayee ko ko muy matériel it du tax asaka war ko waaye nag buñ ko fayee nag mu wuru sa xaalis nag dana seet boobaa léegi nde mat naat mbaa mu ëpp ko da ko asakaal benn at matan ay at atam du tax mu wàññi at yi at mu nekk asakaam déedéet benn yoon rek lay génne asakaam mu des nag ni nga xam ne moom la jaaykat yi baaxoo jaayee ñoom mooy ni nga waxoon di jaay prix normal rek dem jëndaat tegaat kooku moom dañuy génnee asaka ca bor ya mooy buñ dee génnee asaka dañuy seet ba xam na bor ya demee bu ci amee bor boo xam ne que leen ko ameel moom xam ne ni daanaka moom lu ñu denc seen poos ñoo yemoo ndax kooka mën na koo fay te ku jubla faaw dana ko indi te am te wax du fay wa jot na boole ci kooku sooy boobu mu génne waale asakaam ci saasa def ko ne lu mu denc ci poosam bu dee bor boo xam ne ka ko amee jub na waaye nag amul lu mu fayee mbaa ka ko amee am na lu mu fay waaye daal jubut xamul kenn la ciy jot kooku day bàyyi rek moom ba jot ci moom itam saa yu jotee rek daal di koy génne asaka kon noonu la ñuy teqalee ñaari xeeti commerçant yooyu ne kenn ku ci nekk na muy génne asaka ca bor ya wa in kaana dem nekk na adday nu bor ba awil xardu wala marchandise ma min miraasin tukkee ci ak donn fal yastaq dina jubale xawlan at bi maa ci la nga xam ne yàq bis dana ko ngëpp min hu ci moom maanaam bu fekkoon ne bor bi la fay wala marchandise mi la jox da nga ko jëlee ci dono rek kon bu fekkee ne duur sa xaalis daa waru ca ni ki bor bi la fay duur du xaalis mbaa marchandise mi nga xam ne moom nga doon bu wurus du xaalis mbaa bor bi nga doon sax ndax mën naa am nga doon bor ci bi amee loon sa waajur mbaa kenn ko war a doon rek yow nga moom bor ba lu ci mën doon daal moom bu fekkee ne matériel la bu asaka warut te jaayoo ko defoo ci dara ba nga jotee itam muy matériel noonu rek bu wurus du xaalis dara du ci war léegi nag buñ la fayen bor nag boo xam ne da nga koo doon bu wurus xaalis nag da ngay seet bis ba nga ci jotee tàmbali ne tey nga at mi tàmbali bu déwén saa tam mat ni saa ba tey asaka war ca boo ko lekkee diggante bi asaka waru ci boo doon nee marchandise ba tey noonu la boo ko téyee rek noonu dara waru ca ndegam asaka waru ca nekk nga doon aw fas mbaab rajo mbaab oto mbaa kër mbaa yëpp ñooye moom loo ci doon rek te jaayoo ko defoo ko dara asaka waru ci boo ko jaayee nag léegi ngay takk bis bi nga ko jaay ba xam bu dee see déwén sa te nga yore ko ba tey nag maanaam nga yore ca xaalis ba mbaa wursu ba lu mat ni saa asaka war ca nga seetlu foofu ne daa wax rek mu bàyyi ko ci doon waaye amir wu yees rek ko tax di wax ndax bu fekkan ne daa bàyyi ko ci may maanaam ñu may ko ko mbaa ñu sarax ko ko mbaa ñu gaañ ko dal ko ko dàmpe faye ko ko mbaa muy jigéen ñu faye ko ko ak can yépp ñëwee moo atte boobu mu wax rek benn bi lay doon moom daa tudd rek ak doon kese waxal asaaxiri war na gone azakaatu asaka fi amwaalim ci seeni alal fil xayni ci keega wal xarsi ak mbay ma wal maasiyati ak ndoxteef mooy jur nga boole ca wa zakaatul fitri ak murum koor maanaam nag alali gone du tee asaka war te ne nga mat na nisaab rek moom moo xam day wuru sa xaalis moo xam day mbay moo xam day ak jur asaka da cee war moo tax yow mi nga xam ne yaa yore alal li gone yi ñu bëggoon nga dugal ko foo xam ne dana di yokku ndànk-ndànk ndax bu dee at mu ne rek bu dee matee saam ñu génn ci asaka te yokkuwul day mujj balaa gone gaa kàllafe mbaa man caa jariñ rek asaka jeexal ko daal jox ko ku ca mën a yëngutu daal bu ci yëngutu ndax la ciy juddoo ci bénéfice man di génne asaka ja loola baax na ba tey alal li gone du tee burum koor war ca maanaam tey gone gi nga yore fekkee ne am na alal li boppam mën nga koo génneel mburum kooram ci alal li boppam te bañ koo génne ci sa alal yow jagam yaa ko war a génneel su amul alal moom kon nga génneel ko waaye su amee alal bu la neexee bàyyi sa alal li bopp te dem génneel ko ci alal mburum kooram wala sakaatin asaka xalaa xam ji mi war ab jaam wala xalaa man du caa yooni koo xam ne fii nekk na ci moom baqiyatu riqi ndesiiti njaam fii daalika ci loolee kullihi léppam maanaam jaam wala koo xam ne daa laal ci jaam ni ki kuñ goreel leenam bàyyi leenam mbaa kuy jot boppam te àggalagut ak yu demee noonu ñu mel noonu asaka waru leen waaw bala ñoo bala leen asaka war rek ñu dem ba gore mooy fa isaa umatiqa ndeem goreleef na ko bal yëtanif na sos xaw lan at min yow mi isin ci bis boobee bi maa jëla nga xam ne yem liku dana ko moom min maalihi ci alalam ja jaam ba bis bu demee ba gore rek mbaa ka amoon dara ci ngor dem ba ngor ko sotti nag waaw kay booba lay tàmbali jàpp atam nag ci bis boobee ba at ma def see déwén sa nag fekke ko lu mat nisaab nag lu war a asaka nag mënula caa génne asaka wala zakatin asaka xalaa axadin di war kenn fii xabdihi ci ab jaamam wa xaadimihi akub surgaam wa farasihi ak aw fasam wa daarihi ak këram wala maa du caa génn loo xam ne itam yut tax su def na ko jàpp li xiniyati ngir koom la loo koom la loo mooy faje soxla rek jaay faje soxla mu na ribaax yi ci xeeti kër yi wal xuroo bi ak xeeti marchandise yi waaw nee na am na yoo xam ne asaka waru ci ndax yee ñu la waxal ne ci la asaka war bu yee ñu tuddoon rek muy kee wuru sa xaalis ak mbay ak jur yooyu la asaka war waaye jamonoy jaam amee loo bari bari ay jaam te nekku di ci yaxantu asaka du ca war loo bari bari ay surga wala loo bari bari ay fas wala ay kër wala ay rajo wala ay montar wala ay oto wala ay saxaar wala ay avion sax waaye rek nekkoo di ci jaay ko jënd nekkoo di ci dugaloo ko fuy génnee bénéfice du tax asaka war ca loo bari bari xeeti marchandise wala xeeti kër yooyu waaye ngay def rek boo soxlaa jaay faj ca soxla waaye nekkoo di ci yaxantu def ko muy sa marchandise di jaay ko jënd booba asaka du ca war yi wax yëpp nag boo ko wutoon def ko marchandise nga xam ne yow da ngay julab fas mbaa ngay julab kër mbaa yu yu demee noonu su boobaa dañ lay jàpp ne commerçant yi rek nga xam ne baat mi deexee nga seet li nga yor ci marchandise bu dee fasoo bu dee leneen li nga yor daal te di ko jaay muy fas muy leneen rek nga seet lu xayma ja toll nga génne asaka yi ci wuri sa xaalis xam doo génne asakay fas jëmmi fase doo génne asakay kër ci jëmmi kër yooyu rek wala fii maa du caagéne ci la nga xam ne yëpp taxasu def na ko jàpp li libaas ngir sol dina xal yi ci takkaay loolu mooy àtteeg xeeti takkaay yi nekk wurus ba xaalis ndax ka ko am war na caa génne asaka wala déet takk-takk bi mooy bu dee takkaay loo xam ne dagan na ca kooka mu wut ko moo xam ci góor ga la moo xam ci jigéen ji la gannaaw ba mu ko wutee moo xam dafa bëgg rek bu amee soxla jaay ko faj ko ci wala da koy luyee ñu ko cay jox dara ndegam moom daa xas na nekk takkaay loo xam dagan na rek kon asaka waru ca moo xam daa mel na melan moo xam daa dem ba damm waaye teewul rek ñu mën koo jëfandikoo su demee nag ba ma joxtoo kon dañ koy jàpp rek ne nekkatul takkaay asaka daal cay war ba tey it li tax ñu ne takkaay lu dagan bu fekkoon ne loolu takkaay lu araam la moom faawu kooku war ciy génne asaka at mu nekk bu fekkee ne sax góor gi dafa wut xeetu takkaay ndax di ko xaare ay doomam wala yooyu itam du tee asaka war ca waaye daal takkaay loo xam ne dagan naa wut kooka wut ko moom daal asaka waru ja su demee nag ba damm ba mu ñoxtoo kon ñu war koo asakaal waman wari sa ku doon ardan marchandise aw wuxi ba wala mayeef ko la wëññeel ko aw rafaxa wala mu yëkkati min ardi ci suufam sa zarxan bay da sakkaahu te mu asakaal ko fala zakar nit asaka xale yi di ko war fi shay'in ci dara min zalika ci loolee xataa yu baax ba ti dee fi ko jaay wa yastaqbilu te muy jubale bi ci moom xawlan at min yow mi yàq bidu ci bis ba dina nga tamana xo njëgam nga daa wax ne tey boo doonoon marchandise mbaa ñu may la ko mën ngaa njëkke loolu taxaw noonu marchandise bi da nga ko doon mbaa ñu may la ko mel ne fas wi mbaa mbaam mi mbaa saret bi mbaa oto bi da nga ko doon rek mbaa ñu may la ko boo ko téyee noonee rek jaayoo ko defoo ko dara asaka waru ca léegi nag boo ko jaayoon nag ba mu nekk wuru sa xaalis nag say boo datee bis bi nga ko jaayee ba mu nekk wuru sa xaalis jàpp ne ci la service asakaal ci la service asakaal tàmbalee bis ba desee bu bis ba desee déwén sa rek tolloog moom rek mat at rek te fekk mat nisaab rek ba tey asaka war te fekkee matu ko nag asaka du jawar li ci teg nag mooy nga bay am mbay ba mu sotti nga génne asaka ca mbay ma kooku jàppal ne lu yàgg-yàgg moom boo fa tegee noonu mbay ma rek jaayatoo ko defoo ko dara lu mu yàgg-yàgg benn asaka du ci waraat mbay ma boo ci génne asaka benn yoon rek jeex na waaye nag boo wëlbati ko jaay mbay ma ni nga ko baaxoo defee ci gerte wëlbati ko jaay gerte gi mbaa nga bay du wëlbati ko jaay dugub ja kon saye boo datee bis ba nga jaayee gerte ga mbaa dugub ja bu dee see déwén sa rek te fekk mat nisaab rek ba tey asaka war ci waaye nag su boobaa asakay xaalis ngay génne doo génne asakay mbay na nga defoon ci génne fukkeel ba mbaa genn wàllu fukkeel déedéet lay nekk